ani lahin rajim bismillahi rahmani alhamdulillahi rabbil alamin sadid lisaani nawir janaani safi amaani wa zid ñoo ngi sant yàlla di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sëriñ muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak ñaanal ko sëriñ babacar si mansour ak kilifa diine yëpp mbokki lu xew tv seen juróom-ñaareelu épisode waxtaanu koor ngeen ci ànd ak seen mbokkum taalibe Abdou Lahad Aw ñu del siwaat ci seen waxtaanu koor wi nga xam ni moom lañ leen indil bi koor gi tàmbalee ba tey koor gi nag tàmbalee nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko àggale ak alhamdulilahi rabbil alamin xam ni weer la woo xam ni yàlla dana ko indil te weer wi faratay koor ñaar rekk la bariwut faratay koor ñaari farata rek la bari wut ba ca njëkk mooy yéene naa fas wër weeru koor wi yéene gi nag boo ko fasee ci guddi gu njëkk ga rek doy na sëkk geneen farata gi ci weeru koor mooy bañ a lekk bañ a naan ak jëf lépp loo xam ne day waral sa koor yàqu ñaar yooyu mooy farata yi sunna yi nag teel xëdd gi bëgg nan nga xaw ko yéex a def xëdd gi bëgg na nga xaw ko yéex def nga xam ne diggante bi ngay xëddee ak bi ngay jullee daanaka diggante bu ci fukki minute rek doxee baax na waaye bëgg na nit dog moom nga teel ko def ca waxtu wax kon loolu it sunna la ci ak moytu wax waxi caaxaan ñett yooyu mooy sunna ci weeru koor waaye weeru koor it nekk weer xam ni sa xel ak sa xol daa war a dem ci yàlla ndax ëllëg dara dafa jaar ni lu xol bu set yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man atallaaha bi qalbin saliim alaaxira xol bu set rek moo fay jariñ te ku bëgg sa xol set faaw nga bëgg ki nga xam ni xolam moo gën a set ci xol yépp te moo gën ñëpp jikko di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax wa yàlla nee na ku ma bind rek ki la gën mooy Seydina Muhammad te lim la gënee mooy dalaa gën jikko ndax yonent bi saa sallam ndax mu gën ñëpp jikko mooy daa ëpp ñëpp doole te li mu ëpp ñëpp doole dooleem jooju mos caa néewal doole kenn te mu ëpp ñëpp doole waaye taxul moom mu daan néewal doole kenn moo tax ko boo gisee nit ñëpp bëgg la moo da nga am ëpp ñëpp doole waaye sa doole ji mosoo cee néewal doole kenn te loolu lu ma ta bàyyi xel la fii am na ñoo xam ne yor nañ doole yàlla dénk na leen pouvoir moo xam ministre moo xam président moo xam lu mën a doon nga yor ay ndombal tànk waaye ku la tooj rek nga jël ci sa doole fayu fekk yow mi am doole yàlla dénk la doole daraa jéggalaloo waaye fayu loo la ndax màndarga googu moo newoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy daa amoon doole mën a dóore waaye du dóore walaw kunta fazzan xalizal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa saahibhum fil amri sayyidina Muhammad lam yaddu mislul mustafa muhammadi siran wa jaaran fil baraya sammadi lam yaddu mislul mustafa muhammadi siran wa jaaran fil baraya sammadi lam yaddu musta juddu te du juddu ku mel ni ki yàlla tànn siran sëñ Tuubaa nee na li bët dul gis moo ci gën wa jaaran li bët di gis Seydina Muhammad a ci gën sëñ Tuubaa ne ma dalana الإسلام والكفر ما Sëriñ Tuubaa wa bi nasiati li kulli sama yàlla ngarab lislaam teg ko ci loxob rasulillahi waaye ak baax ki nga xam ne moo tax yàlla jéggal nu mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu bi shaa'iri wal baatini man ki woo mat ci li feeñ ak ci li nëbb ata'u lillahi fi kulli saman ma ne ku bëgg a àgg ci yàlla da nga jaar ci rasulillahi xidmatu alilu yoo bi asaba sëñ Tuubaa dana liggéeyal sayyiduna Muhammad demal la sama sikk wal istiqaamatan wa safan wa baa jubal na ma sellal na ma tamay na ma lii baabakum musaa لي بابك المصطفى لي بابك المصطفى رئيسا لكل من قد فلل رؤوسا Sëñ Tuubaa ni leer na ni kawnul Moustapha nekk yàlla tànn raïs raïs mooy tekki ci français président li muy tekki ci olof mooy njiitu réew lu tax Sëñ Tuubaa tuddi rasulullaay njiitu réew daa wane njiitu réew boo gis nit ñee ko fal nit ñee ko folli waaye njiitu réew dëgg mooy kay yàlla fal du ko folli kooku mooy Seydunaa Muhammad ليس لكل من قد فرض روسا قل قدماه فوق كل رقبة منه صار القرى كل من قبا sëñ Tuubaa ni li kulli man xadd fu lu ruusa ku bëgg a raw sax sax maas gën leen a kawe ku la gën a bëgg yonent bi gën laa kawe sëñ Tuubaa ni ka jël ay tànkam teg ko ci loos ñëpp ma Seydina Muhammad waaye Muhammadun Ahmed ku ñu koy nuróo leen mës ta ñëw ci jamono ca la weesu te baat day tukki kenn gis ku mel ni moom ñu ko suñ tubaa du tax sabata anna rabbana lam yuridi misluhu fa misluhu la yuridi loo shaadatu lawal bara yowma ala suwalada saba sabata saxal na an rabbana naka suñu borom lam yuridi du nama bind ko mel ni moom mis nañ loxo ku mu koy dend leen fa mistoo ak ku koy dëkkaleen laa yar di yàlla du ko bind ndax loxo si yaatatu kooku sang la loxol baraaxa mooy ku baax ka yow ma arastu moo njëkk wuy yàlla ca kaw wala na safa ëllëg meram ma jàng seydina muhammad huwa nabiyu wa rasul wal xarim wa wal abibu wal imaamu wa dalil huwa nabiyu wa rasul wal xalim وهو الأبيب والإمام والدليل هو النبي ما ينت والرسول ما ينو يلا هو القليل ما يخط سن بروم هو الحبيب كو كاي سوبك يلا واي هو الإمام ما نجيت لهم سيدنا محمد والدليل ما يتكتل با بلاء البديع من خير جمال وصنع القدوس عن خير كمال xayri jamaal ci bépp taar moom Seydina Muhammad waaye yàllaa ko ñoŋal sellal ko moom Seydina Muhammad kaw na nabiyal kaw nabiyal Mustafa Muhammadi xayral wara xayral wara ku sopp Seydina Muhammad xayral wara xayral wara muxtaara inda samadi nekk Muhammad ka yàlla tànn xayral wara di gën gi mbindéef kooku mooy kan ku yàlla tànn sax mën la tànn sax ci darajaam moom Seydina Muhammad kon baraawul badiyu baraawul badiyu min xayri jamaa wa sanul qudoosu an xayri kamaa nabiyal muntaxa muhammad xayral wara kooku moo gën ci ñun ndeefi inda samadi kon nag xasida gi la mu yëpp seex xasida gi fukki bayit la ak ñaar mhm. at mi fukki weer la ak ñaar Serigne Touba nee na képp koo xam ni jàng xasida gi baa nga déglu fu ko jàngee yàlla defal na la ka xibaadatin sanatin maqbula mhm. am nga jaamu yàlla fukki weer ak ñaar yàlla nangu nga jaamu yàlla un kon nag lii promotion la ñoo ko defal waa xew TV ci weeru koor bi kon Cheikh Touba sant nan la gërëm nan la asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala